جاد بالحسنى وأمنت بثبات ko gën a ñor ci wax ji waaye dafa am lu ko gën a ñor lu jiitu loolu loolu mooy sama bokk yi nga xam ne ñoom laa bokkal sëriñ tubaat te séq ak ñoom liggéey bi li dox sama digganteek sama bokk yooyu laa bëgg ñëpp seere ko tey na ñépp xam ni ci ñoom sama bokk yooyu laay yees lu sama jaayante ci Serigne Touba bu ñu loolu ba noppi ñoom ñooñu ñoo bokk liggéey bi li ci am solo nag nu li ci am solo mooy ñu ànd def suñu itte jëpp ci liggéey bi ñu gën a xam ne liggéey bii lépp loo xam ne lu yitteel la dama koy ànd ak ñoom rek sama bokk yooyu ba mu gis nu mu gën a nasoo ñu door a yëkkati loola loolu yi mooy li ci ëpp solo li nag dama leen ci sama bopp daf leen dama leen di xamal sama bopp ndax wax jot na kon li nga xam ne moo jëm ci liggéey bi li nga xam ne moo jëm ci liggéey bi muy wàllu fàttali gi muy wàllu fàttali gi ak wàllu soññ gi def nañ ko ci këyit boo xam ne bind nañ ko loolu moom mi moom mi ngi fi ñi ko war a jottali it danañ ko jottali incha allah. li ci des nag. ma xamal sama bopp ñi ma bokkal liggéey bi ñépp sama doxin. sama doxin rek laa bëgg ngeen xam ko. ba agsi fii. man bi ma xàmmee sunu borom daf ma nattoo mënumaa def lu ma xamul moo tax nag sama doxin wu jafe la wu metti la li ma yàlla nattoo noonu jàng àdduna jàng àdduna damaa daal di xam ne nag jàng àdduna rek nag moo jiitu. jàngiwuma ko nen nag lu dul sama xel ak sama jikko. ko nen nag lu dul sama xel ak sama jikko. ci loolu laa nekk ay at ci loolu laa nekk ay at. nekkuma ci dara nekkuma ci dara. boyal sama bopp nekk ci loolu nekk ci loolu. la ma loolu indil li ma bëggoon li ma doon gëstu lépp li ma bëggoon lépp. gis naa li ma doon gëstu ak li ma doon bëgg lépp. la ma ci jële la ma ci jëlee. mooy xam ne. mooy xam ne. tegu ci yoonu jub. ci yoonu jub. mooy aw ma benn yaakaar ci lenn lu lu lu tegu ma benn yaakaar lu dul tegu ci yoonu jub rek. loolu alhamdulilah. loolu alhamdulilah rabbil alamin. ma nekk ci loolu. nee na ma nekk ci loolu. ab diir. ab diir. ma xam ne njub lu mu am am njëriñ njubug yàlla njubug yàlla fa la njariñ la nekk fa la njëriñ la nekk dëgg dëgg kon am naa ci tawféex gannaaw diine ji gannaaw diine jëng fi may gëstu sama diggante ak diine ji may gëstu nag sama diggante ak diine ji lépp itam bëgg diine ju lépp gëstu gi ngir bëgg diine ji wér rek ba ma ca amee ab diir ma am ca tawféex la ma ca jëlee xam lay dëgg dëgg xam lay dëgg dëgg diine ji wér a wér ba ma ca agsee foofu ma daal di soobu nag ci biir soobu gi nag. ci laa daldi di jëmee ci sëriñ bi. ci laa daal di jàng sëñ bi. di jàng nag sëñ bi. di ko jàng. di ko jàng. di ko jàng. ba am ci tawfeex. ba am bi loolu amee nag. bi loolu amee. gannaaw xam naa liy dëgg-dëgg diine. xam naa liy dëgg xam naa xam naa sëriñ bi. kon nag dox rek moo ci des moo sóobu ci biir sóobu gi nag ci njàngaleem sëriñ bi ma xam ne sharia ak xaqiqa ñoo fi ne muy diine ji ci njàngaleem sëriñ bi am na am na am na lettre buñ ko joxoon. ci mbirum yoon wi. ci xam yoon wi naka muy doxee. ci xam yoon wi lettre boobu ci xam le yoon wi naka muy doxee la. loolu mooy jawaab yi. Mor Sëy sëñ Mor Faalo Sëy ca lettre boobee ca la waxee ni la mu njëkk a tontu ndax dañ koo jëkk a laaj moom sëriñ bi ci lan nga nekk mu mu ne moom nekkut fenn lu may ci ñaari laafi sharia ak xaqiq ne leen nag sharia mooy li ñëw ci alquran xaqiqa mooy li nekk ci lawul mahfuz la nekk ci lawul mahfuz nag. la nekk ci lawul mahfuz nag. dafa am lu ñëw ci alxuraan. dafa am lu ñëw ci alxuraan. am lu dikkut foofu la ci yem. mu jëm nag ci. mu jëm nag ci. gannaaw daa xam doxinu yoon dëgg dëgg dafa bëgg a xam doxinu dëgg dëgg yoon wi. dénk leen mu dénk leen. ne leen. na ngeen di jàng téere tawxiid yu wér ngeen di jàng téere tawxiid yu wér yi. te di ko jëfee. di jàng téere fiq yu wér yi. di jàng téere fiq yu wér yi. te di ko jëfee. di jàng téere tasawuf yu wér yi. di jàng téere tasawuf yu wér yi. te di ko jëfee. amaa nag. amaa nag. ñi nga xam ne yàlla da leen a jox da leen a jox ak jagle. ña nga xam ne suñu borom moom daf leen a jox ak jagle. na ngeen leen bàyyi ak seen jagle. na ngeen leen bàyyi ak seen jagle ñoom. loolu yi ci la Seex Ibra Faal bokk. foofu la Seex Ibra nekk. loolu. bi muy jàng sëriñ bi. muy jàng sëriñ bi. loolu ci la bokk loolu ci la bokk. waaye nag may wéy rek. waaye nag may wéy rek. di gën di jàng sëriñ bi rek. topp ko rek. ci sama xel. ak sama xol. ak sama pëseef. ak sama jikko. ma topp ko rek. topp ko rek. ba am ci tawféex. ñëwuma kenn ci sëriñ bi. ñëwuma kenn ci sëriñ ah, waaw waxoon naa ne ba ma sóoboo ma daal di nekk ci loolu rek di sàmmonteeg sharia bàyyi bàyyi fee xaqiqa ma nekk ci loolu rek alhamdulilahi rabbil alamin suñu boroom di ma gàttandoog tawféexi sëriñ bi boole ko ndimbalam nag mooy sama doxin ba agsi fii ma agsi tey sama téeméeri xel musta xalaat mukk nekk ne ne lii dana am sama xel mu ci nekk waaye sama xel mu jóg waaye sama xel musu jóg ci sama xalaat yëpp ci sama xalaat ni bëgg rek yoon wi dox ni mu war a doxe loolu moom ngeen gis ma doon ko doxee kon gis ngeen ni ma àndee woon ak samay kilifa ba ci sëñ Cheikh Sidi Mokhtar mii doxin woo xam ne doxin woo xam ni dox ga yomb na ma lool yomboon na ma lool ba ci suñ jataay bii ci loolu laa ne man foofu laa toll woon man foofu laa toll woon lii dal dal ci sama kaw bett ma waaye waaye dolliwu ma dara dolliwu dara lu dul ma gën a am pastéef gën a am ak dogu gën a fas yéene liggéey rek loolu rek la ne sama sang yi laa leen di wooye du ma leen wax sama bokk yi kon dégg ngeen ko kon dégg ngeen ko yéen a jiitu yéen kon bokk taalibe yi dégg ngeen ko kon bokk ko muntaxaa ngoog muntaxaa ngoog sëriñ Muntaxa ngoog ku dem ma dem ku dem ma dem ku demul ma dem li gis nag waxtaanu àdduna rekk la ndax diine ji ba sangub mbindeef yi wàccee ba léegi ba sangub mbindeef yi wàccee ba léegi alxuraan wàcc alxuraan wàcc ànd ak sunna ànd ak sunna xadisu yonent bi mu nekk fi mu nekk fi ba léegi ba léegi doomu aadama yi doomu aadama yi ki leen bind xam seen mbir ki leen bind képp xam seen mbir waaye boobaak léegi waaye boobaak léegi junni at la ak ñeenti téeméeri lu tegal alxuraan a ngi fi. alxuraan a ngi fi. sunnaa ngi fi. sunnaa ngi fi. borom xam-xam yi borom yi yaatal nañu. di ko di ko di ko ci liggéey. di ci liggéey. ba tey. ba tey. sàgganuñu sàgganuñu. lu ñu war a wax. lu ñu war a wax. lu ñu war a def. def nañ ko lu ñu war a wax. wax nañ ko. waaye. waaye. boo xoolee mbooloo mi. boo xoolee mbooloo mi. jullit yëpp. alxuraan moo alxuraan moom yi. moom yi. ak sunna ak ak coono yi boroom xam-xam yi li mu jëriñ ci nit ñi bari li mu jëriñ ci nit ñi bariwul. la coono yi bari bari li mu jëriñ nit ñi bariwul. loolooy nekk loolu mooy li nekk. loolu moo tax ma jiital wax ji moo tax ma jiital wax ji ma jiital. ci sama bopp. Hmm. loolu mooy li nga xam ne mooy doxin wi mën naa yi nga xam ne ci la yoon wi war a doxee wax naa leen ci sama bopp la ca des nag lépp a ngi fi sëñ Moustapha jaral la la nga xam ne mooy moom la liggéey bi laaj maanaam ci fàttali ak soññee bind nañ ko mu wér mi ngi mu ne lool yi tënk naa ko bindloo ko sëñ Muntaxa mii ak man mii ñu tënk ko hmm. loolu nag incha allah lu ñu man rek danañ ko tasaare incha allah eh, la cay dolli ko bon mooy. bokki taalibe dëkk ci dëkk sama bokk yi am tawféex yi dëkk ci dëkk bi sama bokki taalibe yi am tawféex yi dëkk ci tuubaa gii tawféex la. loolu dama leen ci wax sama xalaat. loolu dama leen ci bëgg a wax nag sama xalaat. ngir laabiiri biir ngir laabiiri leen. ku am tawféex yi dëkk fii. ku am tawféex yi nekk ci wetu sëriñ Touba. waroo koo booleeg dara waroo koo dara. bu dee looy wut. sëñ bi noppi na ci sëñ bi noppi na ci. boo fi nekkee ci boo fi nekkee ci nekk ci nag ci na nga fi war a nekkee. sa dara du des gannaaw sa ah, boo fi nekkul na nga fi nag boo fi nekkul ni nga fi war a nekkee. ah loolu moom dañ lay bàyyi sëñ bi rek. Hmm? kon ci ni ma ko ni ma ko bëggee ni ma ko bëggee woon ci sama sama sama laabiire. kon ni ma ko bëggee woon ci sama laabiire. bokk yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi. yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi. ñu dollee góorgóorlu ñu dollee góorgóorlu. xam li li ñu nekk mooy. xam li nekk mooy lan. sàmmonte ak dëkk bi. sàmmonte ak dëkk bi. sàmmoonte ak dëkk bi. sàmmonte ak dëkk bi. mooy sàmmoonte borom dëkk bi. mooy sàmmonteeg dëkk bi. na ko la ko gënal ci dëkk bi. la ko gënal ci dëkk bi. loolu jafewul loolu jafewul a xam. xëy na jëfee gi moo jafe waaye xam ngi moom jafewul waaye nan bokk góorgóorlu waaye nan bokk góorgóorlu nun ñëpp jox dëkk bi àqam jox dëkk bi àqam mooy tax mooy tax mu day bokk ci jiitu war a liggéeyal day jiitu ci yi ñu war a liggéeyal sëriñ bi dëkk bi dëkk bi ñi fi dëkk ñi fi dëkk ñi am tawféexi dëkk fi seen xel warut a xalaat lenn. seen xel warut xalaat lenn. lu ñu defee ne mën na leen a jëriñ ci ñu defee ne mën na leen a jëriñ ci àdduna. loolu waru am. warut waruñ koo xalaat. sëñ bi doy na leen sëñ bi sëñ bi war na leen doy sëkk. te am xel mu dal ne. te am xel mu dal ne. liñ namoon di ko wuti ci àdduna namoon di ko wuti ci àdduna lépp dana leen fekk. ak ñi nga xam ne. ak ñi nga xam ne. dañuy jóg jëm ñi nga xam ne dañuy jóg jëm si ci dëkk bi. ku jëm dëkk bi ku ci jëm si. sëñ bi rek sëñ sëñ bi rek moo la fi war a indi. moo xam da ngay siyaare moo moo xam da ngay si ngir yàlla. loolu tooyaay ba la. moo da ngay ñaan si nag. moo xam da ngay ñaan si nag. say aajo say aajo. kooku yaag sëriñ bee. kooku yaag sëriñ bee. kon ku jëm ku ñëw ci dëkk bi. kon ku ñëw ci dëkk bi. koo mën a doon koo mën a doon. warulaa séntu njëriñ fenn fudul sëriñ bi. warulaa séntu njëriñ fenn fudul ci sëriñ loolu mooy li am. loolu mooy li am. kon nag maa ngi laabiire. kon nag maa ngi laabiire. ñii ñëw ci dëkk bi. ñii ñëw ci dëkk bi. te yitte tax leen a jóg. te yitte tax leen a jóg. buñ jóg mukk. buñ jóg mukk. defe ne mën nañ fee jariñu. defe ne mën nañ fee jariñu. ci lu yem sëriñ bi. ci yem ci sëriñ bi. siyaare ko ngir yàlla siyaare ko ngir yàlla. ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ko seen i soxla. ñaan ko seen i soxla. lu dul loolu. warul ñu di ko wut si ci dëkk bi. warut ñu di ko wut si ci dëkk bi leneen lu dul loolu. ndax ku ko fi wut itam. ndax ku ko wut itam. <laughs> doo ko mën a am doo ko mën a am. li ci des nag moom. mooy sama bokki taalibe yi. sama bokki taalibe yi maa ngi jëm ci sama bokki taalibe yi. ñoom nag. ñoom nag. Eh, dégg ni xanaa war nañoo dégg ni ma ko waxee. xanaa ñoom war nañoo dégg ni ma ko waxee léegi. daanaka jërul xamul jar baamtu. xan daanaka jërul ma di ko baamtu. nan góorgóorlu bu baax. nan góorgóorlu bu baax. ci li sëriñ bi bëgg. ci li bi bëgg. li bi bëgg. li sëriñ bi mooy topp ndigal yi mooy bi bëgg. li mooy daw tere yi. mooy bi bëgg. bëgg. bëgg lu yàlla bëgg.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 ci jamono yi weesu. dama daa wax ne. dama daa wax ne. yoon wi sori na lool. yoon wi sori na lool. waaye dara yóbbu ko fa. waaye dara yóbbu ko fa. lu dul bëgg sëriñ bi bëgg sëriñ bi képp ak doyloo ko. waaye xamuñu sëriñ bi. waaye xamuñu sëriñ bi. dunduñu sëriñ bi dunduñu bi. nun ko gën a xam. nun ko gën a xam. di gën a mucc. di gën a mucc. di gën nekk ci li gën a nekk ci li bëgg. luñ ko gën a dund. muy topp ko. muy topp ko. ni mu ci ni muy doxee. ak ni mu ko bëggee ci ak ni mu ko bëggee ci nun kon loolu mooy dund sëriñ bi. loolu mooy dund sëriñ bi. loolu nag. loolu nag. ku ci góor ku ci góorgóorlu. xëy na yombul sax. xëy na yombul sax. waaye ku ci góorgóorlu. waaye ku ca góorgóorlu. da ngay gën di dajeeg tawféex rek. da ngay gën di dajeeg tawféex rek. di gën a xam. di gën a xam. di ko gën a xam. di ko gën a xam. di ko gën a dund. kon nu góorgóorlu ci loolu. kon nu góorgóorlu ci loolu. lee. lee. mooy tax nekk ay julit dëgg. mooy tax li ma njëkkoon a wax léegi mooy tax ñu nekk ay julit dëgg. muy fonk suñu diine muy fonk suñu diine. te muy dëgg ci ñun te muy dëgg ci nun ten fasoo ko ko. sax ci dàkk. wa sax ci dàkk. li ci des. li ci des. mooy nu xam sëriñ bi. mooy nu xam sëriñ bi. di ko dund di ko dund. ni ko bëggee ni ko bëggee. ak ni ko doyloo ak ni mu ko doyloo. xam gi xam gi. ak dund gi ak dund gi. yombut waaye ku ko waaye ku ko sàkku. wut sàkk ko. te muy dëgg ci yow muy dëgg ci yow. muy sa yitte da nga ci am loolu. mooy sama diggante ak sama mbokki taalib yi la ca dolliku la ca dolliku mooy sama diggante ak ñi ñu seqal réew mi mooy ñi sama diggante ak ñi ñu réew mi moo xam kilifay yi moo xam kilifay diine yi la moo xam ñi yàlla dénk doxinu réew mi moo xam ñi yàlla dénk doxinu réew mi ñoom li ma seq ak ñoom li ma seq ak ñoom ndax man kat taluma dara ndegam la ma weesu ndegam la ma weesu taluma ci woon dara yàlla dimbale na ma nag may dund ak ñoom maslaa may dund ak ñoom maslaa ak ci ñëpp nag ñëpp nag waaye fekk na waaye fekk na taluma ci dara taluma dara lu dul sëriñ bi lu dul sëriñ taluma ko lu dul am ngërëmal sëriñ bi taluma ko lu dul nekk ci lu neex sëriñ bi taluma ko waaye nag maslaa mënut a ñàkk. waaye nag maslaa moo mënut a ñàkk. ci maslaa laa laa fii. ci maslaa laa egsi fii ma egsi. ànd ak ñëpp tàmbalee ko ci samay kilifa ba am seen ngërëm ba am seen ngërëm. kon kon noonu rekk la. nan góorgóorlu ñun ñëpp. te xam ne yoon waa ngoog. mooy li ma wax rek. mooy sama diggante kilifa diine yi. mooy ni ma wax rek sama diggante kilifa yi diine yi. sama diggante kilifa yi nga xam ne ñoo yor ñoom la yàlla dénk doxinu adduna wi. ak sama ak kilifa yi nga xamante ne ñoo yor doxinu adduna wi. ci biir maslaa ci biir maslaa. am dama leen a ameel seen akki bopp. dama leen a ameel seen aqi bopp. waaye jum ci mën a doon. waaye jum doon. danaa leen jox seen aq ba mu mat danaa leen jox seen aq ba mu mat sëkk. noonu rek la noonu rek la. ndax loolu ndax loolu leer na. kon nag noonu la kon Cheikh Bachirou mën naa eggale li ci des lépp bismillah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi fi muhkami tanzilihi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 cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ibnu cheikh Mouhamadou Bachir moom mi nga xam ne tey ci dogalub yàlla ak bëgg-bëggu Serigne moom la fi suñu boroom teg mu jiite yoon wu kon ci ndigalam lañuy jotle kàddu yi daanaka sax amul luñ ci mën a dolliwaat ndax lii sëriñ bi wax leer na leer na ñépp ko déggandoo yàlla nañu suñ borom dimbale mooy ñu ak dégg ak topp allazina yastamiuna la fa yattabiuna ahsanahu te bañ a bokk ci ñi nga xam ne qaalu sawaun alayna aw azta am ndax sëriñ bi bàyyiwul dara ndax leeral na moom ba mu jugee ba fi mu agsi leeral na diggam ak yàlla suñu borom ni ñu war a àndeek moom fi ñu war a nekk ci tawxiid leer na itam suñu digg ak Serigne Touba ñor gi mu ko ñor itam tax na yëmut ci wax ko waaye da koo bind jox ko sëriñ Moustapha Diatara ak sëriñ Mountakha Mbacké ngir ñu bind ko ngir mu mën a tas ci àdduna sépp ndax moom li ne ci biir xolam làmmiñam mënu koo génne ndax Pastef kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom bàyyi ko fi lu yàgg loolu itam ànd mu yàgg jiite jataayu Serigne Touba bi ñu fàttaliku nag bu baax bala ñoo dugg ci jataay bi suñu kilifa gu tedd ga di Serigne Cheikh Sidi Moukhtar yàlla suñu boroom dolli ay leeram te ci barkeem mu nekkoon kilifa gu ragal yàlla ku maanu ku taqoog jaamu yàlla koo xam ne yitteem jëpp génnutoon liggéeyal sëriñ Touba danaa ci ñëw ci li ci sëriñ bi sant ma war koo leeral ci taxawaayam kon sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mboolem njabootu sëriñ Touba gi njabootu sëriñ Touba gi nag bu ñu ko waxee mi ngi tàmbalee ci ay rakkam jàll ci bokk yi jàll ci mbooleem koo xam ne la nga yor sëriñ Touba la ko jox jàll ci mboolem taalibi sëriñ Tuubaa jàll ci mboolem bokk yi mu bokkal jullit ak mboolem bokki réew mi ni mu ko waxale boppam kon ki nga xam ne mooy sëriñ Sidi Mbàkke ibnu Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne sëriñ bi xamal na ma ne ma leeral ñépp ne moom la def tey jii muy jëwriñam fa ko sëriñ sii Sidi Muxtaar tegoon ci yoon wi nee na tegaat na ko foofa mu féete ko fa nekk jëwriñam ci biir yoon wi kon ñi ñi ngi ñaan seen ànd boobu yàlla ko suñu borom dëgëral ak mboolem rakkam yu tedd yi nga xam ne buñ xasee tudd sëriñ bi nga xam ne moo fi nekk sëriñ Tuubaa rek tudd nañ ñëpp ndax noonu la yoon wi di doxee te rafet nañ ci njort ndax kerew bi nga xamee ne sëriñ bi bàyyi na fi moo njëkk a jaayanteeg moom. ne ko jébbal naa la sama bopp àdduna ak alaaxira bi ñu taxawu sëriñ bi ba noppi kon nag loolu rafet na rafet na njortu taalibe yëpp te sëriñ si dafa wax ne bi sëriñ bi waxee ngir mu ubbi jotaay bi nee na yoon wi du genn kàddu du ñaari kàddu genn kàddu rek la te kàddu gi ci sëriñ bi moom mi fi nekkal sëriñ Tuubaa moo kàddu gi moo baat bi bu xesee wax rek ñëpp tàbbi nañ ci biir kon ci leeral ndax. bi nga xamee ne sëriñ bi bàyyi na fi dafa yónnee ni mu ko baaxoo liggéey bi ko sëriñ bi dénkoon yabal leen ci sëriñ Moussa Mbacke mi nga xam ne sëriñ bi wax na ne leeral na ne bi fi sëriñ Moustapha Bassirou jóge ba léegi mooy jëwriñam ci kër sëriñ Bassirou gépp loole itam mi ngi ko yeesalaat nam ko ko dénkoon démb tey la kooku gën a dénkawaat sëriñ si di yabal leen ci moom jébbalaat ko liggéey bi ni mu ko baaxoo def ba mu agsee sëriñ bi xamal ko ne yeesalaat na ndigal li da koy dolli waaye du ko wàññi dolli ga nag mooy jëwriñ ji mu ko def kon yàlla suñu borom yàggal ko jataay bii sëriñ bi toogee nag di cheikh Mouhamadou taxa day jataay boo xam ne ñépp war nañoo xam li mu làmb ndax alxuraan dafa santaane ñuy fàttali fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin ndax yàggut ci màggal tuubaa gi fàttali woon naa ko waaye day wax joo xam ne ñépp ci war a bàyyiwaat xel xam ne jataayam bii mu toogee di jataayam Serigne Touba ku fi toog ku ne Serigne Touba la tànn Cheikh Abdoul Ahad dafa waxoon ne sëriñ Touba. ba mu xamee ne amul kenn amul ñaar te li mu yor du lenn mënu koo jox kii bàyyi kii dafa dajale mboolem li mu am def ko ci waxande waxande wa nag mu ne kenn mënu koo yootaan mu jël caabi ji tox teg ci loxol ki mag mooy jël mbóotam rof ci biir nee na képp ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa yaa caabi ji nee na gaal googee nag kenn mënu ci àgg te jaarut ci ki mag mu ne nag moom itam sëñut kenn ñëw ci moom laaj ko la ci biir joxewu ko ndax seen àll bàyyi ci ne mooy loolu mooy jataayu Serigne Touba mu ne jataay boobee nag xutbaani yéegi njëkk sëriñ Touba da daan wër bu mu agsee ci sëriñ bi nag ci liggéey bi mu doon liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba fàgguwaale ci xutbaani yéegi bu xasee ba dugg ci moom dootul génn génnati mu ne jataay boobee nag bala jaa kenn toog sunu borom dana la peese ak bindeef yi ci balaas ba nga wat leen ñu door la faa teg nee na bu la tegee ca balaas ba nag te watoo leen mu dooleel la ba nga wat bindeef yëpp nee na bu boobaa itam mboolem asmaullahi alxusna yëpp wax nga ci yor rek moo cee dox nee na lépp lu di yiw bu bàyyee ko ci suñu borom balaa wàcc dana jaar ci yow mu duy ca bu feesa dell mu door tasaaroo ci bindeef yi lépp loo xam ne ab nattu la balaa wàcc ci bindeef yi dana wàcc si jëmu nga yanu ci ba doyal sëkk mu door wàcc ci bindeef yi moo tax ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa yaa dox diggante nit ñi lépp kon nag jataay boobu ku fa toog ñëpp war na ñoo xam ne jataay la boo xam ne ku fi toog Sëriñ Tuubaa la fi teg kon sëriñ bi yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér kon wax ji moom duggutu ndax ci ñaari yëf rek lay lay tënku benn bi mooy fàttali ki fi bàyyi ko di Cheikh Sidi Muxtaar ak wax taxawaayub Cheikh Mouhamadou Mountakha euh, Cheikh Sidi Muxtaar suñ borom da ko defal tawféex ndax ba mu jógee rek li ma ko seere loon ne dafa xam ne lu ñëpp bokk moo ko gënal lu kenn moom moo tax ba mu doonagul Sëriñ Tuubaa lu mu am mu moomale ko jëmmi sëñ Baara bi ko fi yàlla tegee mu doon jëmi sëriñ Tuubaa itam xam nga ne juróom-ñaari at bariwut waaye jëf na fi jëf joo xam ne ba àdduna tukki kenn dootu ko fàtte ngir amul jën yitte du guddi du bëccëg lu weesu liggéey sëriñ Tuubaa kon suñu borom defar na ko ci ndam ba mu agsee la mu jëkk a wax mu bokk ci naalam yi gën a jiitu mooy bëgg jullit yépp àndaloo nekk wenn say wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu wa anna haasihi ummatukum ummatan waxida wa ana bu fa'budun suñ borom itam defal ko ci ndimbal tawfiix toog na fi juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer genn juyoo masta am ci biir kari tarixa yi nga xam ne tuddoon na leen kon loolu suñ borom nongoon ak ñaaram suñ borom itam defal ko tawfiix ju rëy ndax ku ne xam ne ne diirub mu fi nekk jiitu na sax muy nekk Sëriñ Tuubaa waaye lim yóbbu na ci ay màkk ci alali boppam kenn xawu nu toll at mu jot baren ñu yóbbu ëpp na juróom fukki nit loolu kon tuyaabale joo xam ne kenn xamut fu mu àgg bokk na ci jëf yi nga xam ne def na ko ndax moom dafa yokk yoon wi ndax bi mu wootee lépp da ko wuusi ndax 2010 bi fi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké di bàyyi ko mbirum Serigne Touba moo demee noonu lu agsi rek day gën a yokk ndax Cheikh Mouhamadou Moustapha dafa mel ne moo fondement yoon wi ndax li jëkk Cheikh Mouhamadou Moustapha ku fi mas a bàyyi ko Serigne dadaa seet ci mbooloo ma topp sa ginnaaw mu yebal leen ci kenn ñu jébbalu ci moom bi Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke dikkee nekk moo tëral nii yoon wi doxe Cheikh Mouhamadou Fadi Mbacke àggale naa le Cheikh Mouhamadou Moustapha ubbi yoon wi muy xuloobu jumlati lazina aflahu li tawajjahat wa rabbil muslihu muy xalifa Cheikh Mahamadou Fadil mu ubbi ko àdduna sépp xam lu yoonu mu xam lu Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëw wane war Sëriñ Tuubaa benn la yoon wi nos ko ba yoon yi doxee nii muy doxee Cheikh Abdoul Khadir yàggu fi liggéeyam dafa tàbbi ci biir Sëriñ Abdoul Ahad bi Sëriñ Saliou Mbacké dikkee nag yoon wi ca cosaan la na ko Serigne Touba sose woon ba agsi ci njaareem ubbiwaat yoon wi mu gën a yaatu ba tasaaroo ba àgg bitim réew kon Serigne Touba ku ne ak lam la liggéeyloo Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñëw weddil tuuma mboolem sët yi ndax kenn xalaatutoon ne buñ demee ba gisatuñ doomi Serigne Touba yoon dana doxe nii mu doxe moo tax damaa waxoon ne bi mu solee mbubbum Sëriñ Tuubaa sol na ko ba summi ko te xottiku tilimul kon moo njëkk sol mbubbum zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil Mustafa tajtahidu bu Cheikh Sidi Muxtaar ñëwee nag àggale loolu kon ci biir loolu nag sëriñ bi bi mu agsee li nga xam ne jëkk na ko fay def mooy kër Sëriñ Tuubaa gi ci Daaru Manaan waa Matlabul Fawzayni fekk Serigne Saliou santoon lem ko ba ca biir liggéey ba yàgg mu yëkkati juróomi téeméeri million teg ko ci loxol Cheikh Mahmoud Mountakha ibnu Cheikh Mahmoud Bachir mu tàbbal ko ci liggéey bi mu àgg yëmut ci biir loola ci njàmbaaram def na fa ñaari bâtiment yoo xam ne Serigne Ahmadou Mokhtar rakkam ji moo ko doon taxawu ñaari bâtiment yoo xam ne bu ñu ko doon natt tey ci wàllug àdduna dañuy wax ne ci hôtel cinq étoiles la toll mu ñàkk ci un milliard sept cent millions yu ko ëpp kon sëriñ bi ci ñaari bâtiment yooyu def na ko ci biir kër Sëriñ Tuubaa bi ci wàllu leeral dëkk bi ak courant bi itam ñàkk na ci lu ëpp trois cent million ci wàllu forage itam ci njëlbeenam ci at yu jëkkee def na ci lu ëpp ñeenti téeméeri millions jumaay Tuubaa ji itam mu am lu mat juróom benn entreprise benn bi mooy waa CSA benn bi di société boo xam ne ab espagnol la bi ci des ab italien bi ci des ci ak yeneen yoo xam ne ay Sénégal lañ ci wàllu yeesalaat jumaa ji ak étanchéité bi mu ci doon def ak marbre bi ak senn gi jumaa ji doon senn ak courant bi newoon ci jumaa ji lépp ñu dindi ko soppi ko def décoration biir gi ak bitti gi ci biir loolu def na ci lu ëpp juróom-ñaar juróom-ñaari milliards kon loolu xam ngeen ne ak njàmbaram kenn xamul ab ab am boole ci itam jumaay masaalikul jinaan te yooyu yépp itam keroog ba mu koy santaane dafa wax ne Cheikh Mouhamadou taxa mooy jëwriñu liggéey bi sëriñ bi futti ko bàyyi ay yitteem ne amatuma jenn soxla lu weesu sëriñ bi am li mu bëgg bàyyi këram bàyyi léppam di yendu ca barab ba te mu wëttali na ko ndax ñun ñii di toll ci ndaw sax boobu ñun dañuy sonn lottu te moom boo xëyee day gën a sawar jàmbaar ne ca biir waar sëriñ bi daal forme benn commission boo xam ne commission technique la ñor wàllu liggéey ba mooy dox ba nëgëni Cheikh Mouhamadou Mountakha ci ndigalam moo ko samp kon mel na ne Cheikh Sidi Moussa junjoon na ne liggéey bi dana àgg waaye ci loxoom lay sottee ndax ku ko yéene lool la liggéey boobu itam xam ngeen nam demee ndax sëkk ba ñàkkoon na ci entreprise bi ba ko yoroon lam njëkkoon wax demoon na ci ay milliards deux cent waaye ci seen goo dem na ba ci juróom-ñetti téeméeri millions sëkk ba rek yi ëpp na ay milliards boo xoolee la ci dem ca tabax demoon na ci lu ëpp ñeenti milliards boo xoolee finition ya la ci dem lépp ci wàllu bunt yi fenêtre yi sonorisation bi ba may ne wax ne la ci des bëriwul mooy ñaar ñaari liggéey yëpp bu ci ne ay lu la ci ëpp bu doon téeméer man nga ne juróom-ñaar fukki wala juróom-ñett fukki jeex na ñàkk na ca lu ëpp fukki milliard nangam kon sëriñ bi boo xoolee li mu fi jëf ci biir yoon wi bokkut ak nag liggéeyu biir yi nga xam ne ko doon def ëpp na ñaar fukki milliard kon loolu jëf la ju rëy joo xam ne warees na koo kañ warees na ko tagg te bokkut ak nag kër sëriñ Touba yi nga xam ne santaane na ko muy kër sëriñ Touba gi nga xam ne mi ngi daaru ma naan am na juróomi kilifa yu mu fay liggéeyloo waa kër Cheikh Massamba Mbacké ña ngi ci liggéey ba sori na waa kër Serigne ma Mbacké ña ngi ci liggéey ba waa kër Cheikh Issa Dieng ña ngi ci liggéey ba bokkut ak kërug héliport gi nga xam ne itam moo ko santaane woon ñu liggéey ko mu àgg mu defarloo ko. Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général Baye Fall bokkute nag naal yi nga xam ne Serigne bi amoon na ko ci daara Cheikhul Khadim liggéey yaa nga xam ne jot nañ ko faa def loolu lépp nag fi ko Serigne bi tàmbalee liggéey bu fa mu tàmbalee ci njëlbeen ga ba ci mujj ga lu ci ne laata Serigne bi di ko tàmbali dafa am commission boo dafa def li ñuy wax appel d'offre appel d'offre ngeen koy xamee mooy woo entreprise yu bokkut ñu laaj ki ci gën a baax la njëkk. commission boo xam ne seen yoon ñëw ci xool ko ba mu tegu ci yoon mu am bureau contrôle ñooñu di ko saytu fa sëriñ bi tàmbalee liggéey ba fii mu ne itam mboolem lu ci génn ci dërëm facture ba mu àndal ak chèque ba lépp ma ngi ci kër sëriñ bi amut lenn loo xam ne am dante nee na ca te sëriñ bi kon moom dafa maandu ndax loo xam ne taalibe yi bañ la koy jox na Cheikh Mouhamadou Mamoun Darou Sam daa def rek di yëkkat almet teg ci damay wax ne taalibe laaj ñu rusi te soxlawuñu xam fu ñu koy def waaye moom nag lu ko nit mas def rek jox rek dafa naru ko ci liggéey Serigne Touba bi kon yàlla na ko suñu borom dolli ay leer te taas suñu ci barkeem sëriñ bii nga xam ne moo fi ne tey nag suñu kilifa bu baax suñu kilifa gu baax nga dafa waxoon ne ma nga ne lañuy wax ko ami bët ma nga ne waaye waaye ko amuti bët moom mënta wax ne du gis. Cheikh Mouhamadou Mountakha taxawaayam àdduna sépp ñëpp sépp xam nañ ko ndax ba mu jógee rek ni mu ko leerale boppam dafa jël léppam jox ko yàlla jox ko Serigne Touba topp ci ginnaaw ay kilifaam amutu bëgg amutu bañ jataayam bii ku ko xam ku ne xam ne mosu koo sooraali mosu koo bëgg dama daay yéem di wax ne moom laa gis ci koo xam ne bëggu cëru àdduna muy lu ma leer loo xam ne du lu muy wax sax waaye danga koy dund ak moom xam ko kon xel yëpp war naa dal njort yëpp war naa rafet yëpp naal woo xam ne Cheikh Sidi Mokhtar amoon na ko yàlla na ko àggale am na rek naali boppam bu ci àggee dana ko wax ndax kilifa kenn du ko jiitu te moom moo am ndigal lu wax li ñuy wax lépp dañ doon leeral ci bëgg-bëggam am nay xalaati boppam ndax moom ñëpp xam nañ ndimbal te lu fi sëriñ bi ma sa def rek moo nekk jëwriñ ja jiitu ca bandam ndam yii yëpp mën a am kon ñu ngi ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba jataay bii di jataayu Serigne Touba lim yéene liggéey Serigne Touba ci diggam ak nit ñi yéene ko ci diggam ak ñu bokkal Serigne Touba te fas yéene nee na du réer ak ñoom ci lenn li mu yéene ci liggéeyal Serigne Touba ci taalibeem yi yéene ko ci réew mi yàlla ko suñu borom may kàttan ak wér mu àggale ko ci jàmm te suñu borom tàbbali ñu ci ñaanoo Serigne Touba gane adxaltu nafsi wa jamiha ahli fi jaybi afdali wara sil fadli wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu